allo yow xam nga man xam nga man tabara man loo ma neex tabara say bool amul say kaas amul nee naa la képp koo xam ne yaa ngi jaay bool baa kaas war na heure bu xëyee ñëw ci yow jox la 1000 francs te xam ne yaay boroom bool ah bool yoo xam ne bu heure reer jotee moom mooy wax ne heure reer jot man ci yow laa ko gisee cëm taalibe sëñ Babacar boole woo daraa ki wax boole woo daraa ki wax yow daal yaa jël semu ne bëgg ko semu jël la bëgg la yàlla na la yàlla la réew mi moom corona bi téye lépp moo téye lépp waaye na ne raxas wax saabu yi di takk suñuy masque di jël gel bi lii daal man da li gën a dee mooy gel bi man meleen laa ko def man moom man ma sangoo pare man dama koy melanoo man xanaa kon kor corona dina booy kaay leen kaay booy man ma booy. buñ dem nañ dem wala wóor na yàlla maa leen gën a dënk foo gën leen a jub loxo toj seen. bu ma leen sàcc ah dox dox xam nga yéen damay taxaw wax ak yéen parce que yéen booy da ngeen nar réew yéen. sax laay waxal yow ah, yow nan nga may ñëwee fekk ma man ma tiim di fees xamoo li may fees fan laa koy yóbbu ah ngay woy wër di ma fenal yow ah moo tax ñun ñeme ay fen. père waaw gis nga fii kenn fenalu la fi yow ba nga dugg si bayal bi yow ñun ñoo ngi ñoo ngi noonu ci porte bi di di kii di fubal léegi yow dañ la topp A ba Z waaw yow ñuusul na nga naan A ba Z ba nga duggee si bayal bi waaw jël mbaam mi di ko di ko fees ba ni nga koy kilo 2000 lépp bàyyiwuñu la yow nag moom yow ku ñeme ay fen nga yow yow boy ñeme nga ay fen de yow yow lan mo la leer ne man dama koo fees jaay ko man ma fees ko bam jek jékki yan ko yóbbu ko parc aar yi ma jot ko xaj nga may wër fenal xam ngeen ne coronavirus bi ko ci réew mi la ay fen bu nit ñi man ko woon bàyyi fen lengu mu dem yoonam jaay yàpp mbaam mbam sefi nag kan moy jaay mbam sef man ha ah, boy sa xam nga la man ben ben leen ko mak ben xale ma ndax man bu de rew ma leen gëna rew fop nous leen ba ngeen teud lay def ndax de nga wax ji yo père yow amul sa xare amul keneen ye ñaan ñep lay boole noq man man samay nok amul ki wa kee de damay jajare rek di dox gat yene ñan xam bi ni nii lañ la yow waaye yow waaye bii paat police lañ jëm man dem police

ne ñoom la ñoom samay doom ngeen rangé nañ leen seen yére. waaw ki ne rangé na. waaw Omar. dégg naa sama papa Seydou mu ngi fi. sa papa de mi ngi fi mooy sama jëkkër yaay léegi. léegi sama yaay nag. xam nga Simba la déclaré fi na amul jabar amul ay doom. léegi ñun duñu ay doom. ay doomam ngeen kay waaye daa bon rek. yow man cere yow man kii am de noo ko noppi na yaana yaana baal ma yow ak ngeen ñëw wuy ma dama leen a soxla am sant la tudd kii Omar. na ngeen def. waaw yéen a ngi ci jàmm. man seen yaay. papa yow yaa bon yow nga ñëw fii ni amoo ay doom nga am ñetti doom man Omar ak Jamil mii nga ni amoo doom soo jàkkaarloo yàlla lan nga koy wax. papa lan la def. Wagner. Jadi ngadok daya itu direrek. No. Kita maham nih. Nafi moy bandi deug deug deug. Wah, mu nekké bandi? Nafi dal. Hmm. Fexé né ba lijeenti xarjat. Ah, lijeenti sem ba indi fi doom yi bu ñu ko rété. Doom. Wah. Doomu sem yi. Ay eh, doomu sem dañu ñëw ci kër gi. Hmm. Tar nga dé sem am ñatt doom, ñaari deugal ak kenn ku lay wax ni mané ne ci biir mom ak sama yaay ak xalé yi. mo ilaha illallah. kër gee ñu toj yow. yow lool doyna war dé de. c'est que c'est mo bon yow nak nga mëna amé ay dom ba paré ah sanni leen non dem sa yoon. ñun daf kay baax vraiment. fo bon quoi mais dina ko lay suñu borom de. si tët tët tët bu grave ah doy na waay. waaw trop sax dama yeggal sa togg bi. di tiitati naa. kër gee ngi toj. waaw rek nafi la bi fekk amul ne nafi gën a nekk bandi téeméeri jëm. non. ay Nafi Mbaye yaayati nga ba day doom. njaboot gi xoolal sa njaboot gi ni ñuy jooyee nii lan moo gën a ñaaw lii si mu war ngaa jur say doom ba pare di daw seeni responsabilité ñi keroog yomal xiyam li la xale bi wax dëgg la de di nga ko layoo ak ñoom xarjate ñëw na fi wax nga dem kompaloog sa waajooju ngeen ñëw ne dof la mais xoolal sa doom yi ñii ñi ngi dëgër semu amoo loo wax muy wax man yaay nga ma aw ba leen lu ma wax mbay yaay nga ma yaay nga ma naa ne ne naa def nii loxo moom na dal gémmiñ rek te doo ànd ak tibu ceeb semu semu semu yow dee ngaa ñëw jox la cent nga ànd ak xale dem ta rafet eh, Omar mag du de Papa noppi Papa ma jooy Omar. Papa noppi bi mbay dama ne ba ma ku wal mburu lii mu def dafa maa ko jépp. không phải giết mai hồi rồi không phải giết mai hồi rồi con đang là chiều về cái chiều con đang thì sang trong góc con đang chiều về rồi nó nhịp nó là phải ăn luôn lên tập rồi nó nhịp xong rồi nó điều cháo dañ jàppale ko ci yow di di booma di sàkka laamu xayran njoorawal jàmm ah. waaw di bul ma bi fàtte ko ko fi daal mu booboo fi sa ul bi nga fi indi woon yaa sol nga ko bi di ko yóbbaale ànd nag moom ta dem rek Ibrahima ay waay ba sama njaboot gi moom Ibrahima Thioub damaa bëgg a dëj. kii naka yi. génn damay dëj. dinaa ba dinaa ba dinaa ba. Thioub sama tànk day métti dimbali ma li laa war a sori nga génn sama kër waaw baax na ba tey ba tey baax na laa ilaha illallah alhamdulilah rabbil alamin ay waay sama génn na sama kër gi jërëjëf yàlla jërëjëf yàlla allahu akbar laa ilaha